mooy wax non ñoo lànk ñoo bañ si yokkum électricité bii ñu yokku mais yokku si ne ñu jug ne dañ koy défendre ku jëm si ku mel ni Guy Marius Sagna ku mel ni professeur Babacar Diop ak ñeneen ak jeunes yoo xamante dañu taxaw pour ne loolu d'accorduñu si je pense que ñooñu du ñooñu la ñu war a dugal kaso ñu ñu war a dugal kaso ñeneen la donc dañ leen wax dañ leen a libéré parce que seen place du kaso lu ñu mën a wax nag mooy ñu ngi rafetlu bu baax organisation bi. li am solo كان من في نك نك فنن نك سلنن لو خمنتنا نجمل لدول ستها والأفكان بي ليه مسلم موي population بي نيلا جي خيال تي population ينور جن أماس بس كخيال بي نسي جن صنو mooy ñoo xamante ne ne xañ nañ leen liggéey xañ nañ leen seen euh, seeni seen i nja seen yi ñu toppatoo leen xañ nañ leen lu bëri ñooñu la ñuy laaj ñu génn tey ñooñu ñoo génn loolu moo am solo je pense que muy politique yi membre société civile yi et cetera yàgg nañu organiser ay manifestation yàgg nañu dem ay front tey ku ñëw ak ku ñëwul yëpp pour man benn la li am solo mooy mobilisation bi ñu am fii